mën a bokk ci waxtaan bi xam naa ne café lay lijjanti bànjaaki waaw yeneen charge <laughs> yeneen charge teguwaat ci kawam ginnaaw bi ñu ko tegee loxo fan yi yëpp def sax ay percussion ci këram waaye tamit ci këru kii di Farba Ngom. bon xam nga Jérôme dafa am luñ koy maanaam kenn lay mat une semaine ginnaaw suba lay mat une semaine mais fii kuñ fi jàpp lu mu rëy balaa une ñu lijjanti sa kaa ñu am lu leer ñoo xamante ni. dañ lay dénkaane fële ci kaso bi euh, bu ñu demee këram xam na dañ fa fekk euh, lu ñu tuddee euh, passeport diplomatique fekk fa lu ñuy tuddee munition fekk fa lu ñuy tuddee également bu ñu demee Mbour ñu fekk fa benn arme à feu maanaam fetel boo xamante ni dafa ànd ak million ak bu xaaj xam nga 300 ou cent mille ñu dem le samedi. kër Farba Ngom mi nga xamante ni moom mooy euh, jam ñaayo ci Benteñe ñu defaat même perquisition mais foofu bu ñu demee waxuñu waxuñu waxuñu lan lañ fa jëlee waxuñu lan lañ fa jëlee waxuma xaw ma ndax jëlee nañ fa dara waaye waxuñu lan lañ fa jëlee mooy kër Farba Ngom fële nga xam moo nekk Benteñe moo waral moo waral coow li Farba Ngom le dimanche dégg ngeen ko mu def conférence de presse wax si ci perquisition bi nga xamante ni moom nee na yëgu ko alors léegi nag. pour wol la ne lu ci bees ak dossier yi fan la jëm mën nga ko comprendre très aisément euh, jéem a la comprendre Jean Baptiste Tine di nga laajte ku tax may def corrélation bi dañ ko nommé en 2019 le haut commandant de la gendarmerie nationale euh, juin 2021 ñu daal di ko fa jëlee alors que lu ko dese woon mu retraité benn weer la alors jamono jooju su ma la waxee haut commandant moom moo yoroon sécurité euh, président bu waree dem ci benn gox ay éléments am ñooy assurer sécurité bi ay éléments am mu dem Macky Macky Sall dem vers le nord euh, cool yi am ñu gis ne am na ay nervi nervi bon moo leen nervier parce que dama leen di qualifier waaye nit ñoo xamante ni danoo am doole lool ba pare danoo raxoon sécurité présidentielle bi te loolu neexuloon sëriñ boobu nga xamante ni mooy Jean Baptiste moo taxoon Macky Sall moom werante boobu noonu non sécurité bi mat na wala matul coow li am mu daal di ko jëlee foofu noonu mu def décret signé à Matam pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal un président de la République signe on décret hors de Dakar surtout mu nekk Sénégal defee ko fa li nga xamante ni moom mooy euh, maatam alors ci euh, ki nga xamante ni moom mooy Jérôme xam nga nee naa la sànq ci commencement bi nee naa la Jérôme mi li ñuy wër ren dañ passeport diplomatique ak logement ak arme munition bi ak un million bi daf daf daf ci daf ci daf ci maanaam da ciy feeñaale rek waaye loolu taxul leen jóg parce que bu doon loolu moo leen tax a jóg li ñu continuer di wër parce que la preuve bu dee da ngay wër waa ji am na passeport diplomatique walla amu ko boo ko gisee rek boo gisee passeport bi da ngay jàpp rek te tourner jàll ci leneen. mais bi nga gisee passeport diplomatique bi nga gis ne waru ko am mais lu mu def ci titre bi en tant que nit ki lu mu def agent administratif doonu ko donc loolu usurpation de fonction la mm-hmm. euh, passeport diplomatique bi waru ko am il n'est pas un ayant droit donc waru ko waru ci bénéficier wu ñaari chef d'accusation nga noonu beneen bi mooy le logement de fonction waru ko am waru ko occuper loolu état kenn rek la ko mun jox mooy koo xamante ni dafay liggéeyal état wala muy liggéey ci turu état kese te boo ko amul boo ko amee bu ñu la ko joxee te mérité woo ko bi waru ci bénéficier wu loolu la ñu tuddee escroquerie à l'état beneen bi mooy soo yoree munition maanaam balu fetal wala lu ci ànd te waruloo ko am loolu la ñuy tuddee détention illégale de munition soo yoree fetal te waruloo ko am loolu la ñuy tuddee détention illégale d'arme soo demee également feneen euh, nga dem fële Mbour foofu la ñu fekk également cette arme là de calibre 22 ñu dem Kër Farba Ngom foofu nag laa bëgg euh, takk der bon waxuñu en tout cas man ba léegi dégguma lan la ñu retrouver Kër Farba Ngom léegi nag euh, ci biir lu ñu dém bu ñu ko dégloo dégg nga ñu ne mën nañ ko toppee trafic d'armes trafic d'armes mais dans ce trafic d'armes qualifié wuñ ko waxuñ trafic illégal wala trafic mais trafic la ñu wax parce que un trafic peut être légal mais l'auteur peut être poursuivi yaa ngi dégg comme euh, Petit Boubé Petit Boubé bii Petit Boubé bu nekk Niger euh, ci kanam tour di ngeen dégg dossier am parce que moom ci 45 milliards yi ci la bokk Petit Boubé xam nga Petit Boubé xam nga ko ñemewul dem ni dem Nigéria buy dem ñu koy jàpp Petit Boubé boobu xam na bu baax xaritu Alassane xaritin xaritu Macky kii la Alassane Dramane Ouattara la donc di nga comprendre xaritu Alassane Alassane Dramane Ouattara bu traîner Sénégal jamono Macky Sall kon xam nga ne loolu du problème tu dëgg comprendre nga voilà léegi euh, ñu toppee ko trafic d'armes parce que jàpp nañ ne milliards yooyu nga xamante ne tey di defoon ci 45 milliards yi certainement moom am na ci benn rôle bu mu si joué moo tax ma ne la un réseau de trafic d'armes du kenn ay nit nit la te doo boo ci topp doo ci jàppee benn benn simple yi ay homme d'affaires mën nga ciy fekk parce que ñoo xamante ni ay business la ñuy def euh, trafic d'armes te dégg ngeen fi ay ay ay israéliens ñu tuddoon ci mbirum trafic d'armes hmm. ñoo xamante ni ñu bëri lañ donc loolu les jours à di ngeen ci am lu leer waaye nag sànq su ma sañoon mu dem ñibbi këram waaye malheureusement c'est pas le cas et ce sera pas le cas. Mhm. parce que du mën a ñibbi këram lu tax du mën a ñibbi këram mooy luñ ko teg doy na pour ñu tiye ko waaye li ñu li ñuy séntu ci moom pour ñu toppee ko rëy na lool ba tax doo mën a bàyyi. Mhm. voilà euh, euh, rëy na lool saawolof euh, ci loolu ñu gis kii di Dambo ci daal di réactualiser waat plainte bi nga xamante ne ni defoon na ko ci kii di Sniper. waaw da ko def wareef waru garam. Mhm. te dama yaakaar ne nit moom. su fekkee ne dafa am lu la gàllankoor tey sànq man ak cuun bi ñuy dox am na xale bu jigéen bu ñu romb bu rafet macha allah toog taxaw noonu di xaar taxi. ci bi muy taw waa ci taw bi noonu. ki may ko gis rafetaay bi waaw mm-hmm. rafet loolu macha allah yàlla na ko yàlla defal xéewal euh, su ma noppee rek di nga xam ne tax may wax. Mm-hmm. daf ñu wax nañu sëñ bi may jàll. ne ma mm-hmm. sëñ bi ma ne ko am foofu ngeen jaar. dafa am pax mu fa nekk. Mm-hmm. maanaam loolu xam nga lu muy jariñ. dëgg mm-hmm. mooy nit ki soo jàllee ci dara loo xam ne gàllankoor na la da koy wax. mbir mi mm-hmm. dund nga ko. xam nga yenn saa yi nga dund yoo xam ne sax moment bi ñu tolloon wax ko sax du efficace ba tey cuur mii ànd nañ. loolu dàmboj di wax. pas ay bal nàngam xaw nañoo dal dem nañ émission guddi almadi Africa 7 dégg naa benn waay toog fii sax karoot di tappale naan moom saboote nañ nàngam te APR la bokk te alors que moom bu daan ñëw émission yañ fa seq yépp lañ boo xam bi muy ñëw pika bu nervi la ëndaale biram xujjuloo sax bu Pastef mm-hmm. émission bu bare daa génn bunt bi rek ndaw du grand la la mu ne waay gis ngeen nervi yi mu ne ko mais looy looy looy daw nii mu ne am ma ne ko dañ dem daal di génn taxaw mu doog a génn après cuun génn waa ji doog a génn dugg seen kii ñu dem mu ne waay boo xoolee waaj da ngay xam ne psychose lañ ko teg quoi te effectivement loolu war na tiital